ay tali yu fees dell ak ndox lañuy yeewoo Medina dëkkee jéggi te xuusoo daanaka mbir bu mënut nekk la ah ñu ne dañuy sonn si rue 22 bii sonn nañuy tàyyi nañu gis ngeen ndox bi boo tëddee sax si yow yow nga nekk sa kër nekk si ginnaaw foofu doo nelaw doo ah, mën a toog sax si mbedd bi ñun si si mbedd bi nañuy jaay ay gerte gi yëpp dañuy sonn donte sax taw bi ñu nemmeeku démb bokk na ci lu ko yokk waaye ñoom ñi fa faree de ñoo ngi ñuy yëgal ne nekkul li ko indi. lii kay du si nawet bi rek lii kay problème bi yàgg du tey du tey ah du ndoxu taw de ak ndoxu foos yi fee tuyau bi moo bënn mooy ñëw nii. ñoo ngi woote wàllu ndax ndox bi fa nekk moo ngi leen di jural ay jafe-jafe yu bari dem ba di gàllankoor sax seen wér gu yaram. Rue 22 ku romb rek ñooy Rue salte na. rue 22 salte na di gas rek di suul te du ñu defar ah xam nga loolu du yoon lii kay war nañ si jug nag waa mairie yi jug si ñi moom ñi moom affaire yi gouvernement yi taxaw si ñu defar ko moo gën. situation bi fa am nag waral ñu bare yoon bi ñu duppee rue 41 angle 22 comme ni ngeen ko gisee ci image yi garage mécanicien la gën a nurool ko tali askan bi fa faree nag di ñaan nguur gi. ñu def ci li war ndax problème bu yàgg la te bi leen indil ay jafe-jafe yu dul jeex